journal bi di Rewmi Quotidien li mu gis dal mooy jàpp gi nga xam ne ma ngi mel ni tulleeg male ci biir Pastef dafa mel ni Pastef jamono ji gars dañu ko bëgg a ŋàcc ba mu seet wecci ndax ñi nga xam ne ñooy ay ténor di kàngam yi nga xam ne ñoo nekk ci Pastef ñu si bari jamono ji caabi féete na leen ginnaaw ki ci mujj di Bassirou Diomaye Faye Fadilou Keïta moom ti ma ci kasu bi ak ñeneen ak ñeneen ñoom El Malick ñu takk leen ay bracelet électronique yéen na ba léegi duñu si yàbbi maanaam tuntuwuñu ko benn yoon ndax Idrissa Seck bi muy attaqué Abdoulaye Wade wax na ko kàddu yoo xam ne yu ñaaw la kàddu yu ñàkk woor ma Idrissa Seck dem na bay wax ne mbooleem li nga xam ne Abdoulaye Wade digoon na ko ko ni ay promesse amul lenn lu ci Abdoulaye Wade def ndax nee na Abdoulaye moo ko waxoon na ko dinaa la def ab député daal sa salaire par trois ba pare avant salaire deux à trois mois ba pare jënd la kër idi nee lii lépp Abdoulaye Wade ni dafa fàtte ne Abdoulaye moo tax gaa yi xam ko maanaam idi tëju na ñaari yoon la ko Abdoulaye Wade ci nguur gi atum 2002 def na Idrissa Seck ministre d'État def na ko directeur cabinet def wala moo ko tey journal na maître Abdoulaye Wade mi nga xam ne 97 am sénégalais yu baree bari dañoo gis ne maanaam mérite wul song ne Idrissa koy song te Abdoulaye Wade defal ko lu nekk ci réew mi yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu kii jiite parti réew mi di Idrissa Seck nekk ca conseil économique social environnemental jamono ji sorewut ak ko jaaxle ndax institution boobee pëccëxoo moo fa am ndax ñi nga xam ne ay membre APR lañu ñoo bloqué conseil économique social environnemental dañoo boycotté Idrissa Seck loolee moo tax moom Idi mer na ba mara détail yi daal di interpellé Macky bi nee na Idrissa Seck dem na bay wax ne lii ab anti républicain la moom Idrissa Seck nee na bu ci Macky Sall na bi du l'observateur nee na bu voilà ñi nga xam ne ñooy waa APR ñoo bloqué conseil économique social environnemental yéen kay gi de Le Quotidien yor yora xëy ci mi nga xam ne amoon na turu amoon na doole ci lu jëm ci wàllum politique waaye idi jamono ji mën nañoo jàpp ne dafa daal di ndetteelu comme ni ko xale yi waxee maanaam départu gaynde arrivé Moussa Idrissa sekk nekk koo xam ne ku yàkkamte la journal bi di Le Quotidien yor yora na ci dikk ak transhumance bi nga xam ne ñenn ñi gis nañu ne moom la Idrissa Seck def ci lu jëm ci wàllum tarixa maanaam dem ci murit ga ne murit gi boo ca nekkee loolee mën na laa yokkal ci lu jëm ci wàllum élection te idi mi nga xamante ni dem na yi journal bi nee na ñi nga xam ko loolee bokk na ci li yàqal Idrissa Seck ak partem bi nga xam ne bëri ci ñoo xam ne dem nañu seen yoon idi min jóge primature dem bërëbës journal bi xëy na ñëw di ko faram fàccee journal bi du source a na Idrissa Seck daal ne ak koo xam ne lu bi rek lay def ca diwaanu Washington contrat beeg yaa ca am lépp source a xëy na ñëw di ko faram fàccee yéen i kaay gi di enquête xëy Sall bindu na ci liste électorale yi waaye ba léegi génnagul ci mbàll gi ndax article 29 dafay tere Karim Wade mu bokk ci élection yi lii tax mu mën cee bokk maanaam ñu amnistie ko wala ñu réformer li nga xam ne mooy code électoral bi journal bi di enquête moo ci xëye li am ci yéen kaay gii di li quotidien na nag korite gi nga xam ne jamono ji nar naa métti lool ndax li nga xam ne moom la ñu nemmee ko mooy njëg yoo xam ne yokk na ba maara détail yi ay père de yoo xam ne jamono ji dépense la ñuy wuta ndax dëkk bi moo kale kàkk yéen kaay gii altine gi àjjuma la wala samedi waaye li am ba de li nga xam ne mooy ginaar ak ndawal gi yàpp jamono ji seer na ba a day tale loolee sax tax na ñi nga xam ne ñooy borom kër yi bu ñu nelawee du ñu nelaw ba yandoor yéen kaay gi di suddi ko di jee nee na marché bi jamono ji ma ngi xaar marché bi tàng na jër kenn munta laal li nekk ci marché bi ñi nga xam ne ñooy jaay ginaar yor nañu ay ginaar waaye gisuguñu picc mu ñëw di jënd ginaar suukar si nag ba léegi gars yi gisuguñu ko yéen kaay gi di réew mi ko di nee na si tóor nduur mi nga xam ne moom lañ fi tuumaloon lu jëm ci wàllum viol setal nañu ko bàyyi nañu ko mu ñibbi chambre criminelle ñoo def lu ni mel journal bi di libération xëy duñu xibaar naan ñu jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñu teg loxo ci lu jëm ci wàllum toppuka ci facebook bi am na lu toll ci fanweer ak ñeenti plainte yoo xam ne déposé nañu ko maître Ciré Clédor Ly ci la bokk journal bi nee na journaliste bi di Thioro Mandela moom démb dafa daanu crise dafa ëmb journal bi nee na évacué nañ ko yéen kaay gi nee na li ñu koy toppeek li ñu koy jiiña jëm na ci ndigal bu seen TV bi nga xam ne moom la wax ne moo violé Fama Dione mi nga xam ne moo nekkoon ay jamono mi Sénégal ak lu soxal relation ak sombi gerte journal bi du source a xëy duñu xibaar naan ñu démb am na juróom ci ñoom ñoo xam ne defeere nañu leen ñu am retour de parquet yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ci rubrique bi nga xam ne sebe moo koy def daan nay wax ci soxna Aïda Diallo mi nga xam ne moom la ñu gis mu daal di sol ay tenue sport yoo xam ne jamono ji ma ngi jàbba jonge sebe li mu wax ci journal bi nee na ko ndeysaan yaaram gis ngeen photo yi de lii moo tax ñu gën la bëgg sunu sëriñ bi soxna Dada dafa am diine bari feeling ba pare lu mu sol gaay na gongo